waa asalaamaaleykum asalaamaaleykum euh, mbokki sénégalais yi mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp euh, comme ni ma ko tàmmee di wax rek man la seen sœur euh, Mariama Seck mbokk yi man la Mariama maa fi defoon vidéo ci jamono yële passé fekk xool fekk ko covid fekk covid 19 bi maanaam feebar bi génn nii bi xew nii léegi fekk maanaam duggagul sax itali mais ci jamono boobu ñu ngi doon commencé fii fi ma nekk man fii ci itali ñu ngi doon commencé di di tëj seen restaurant yi fekk duggagul ci itali ci laa jël sama vidéo ci 16 million sénégalais la ñu laa yaakaar ci biir Sénégal ma jël sama vidéo doon alerte def alerte du dëgg doon def alerte di wax naan euh, maanaam na suñu nguur gi tëj frontière yi li ci aéroport bi wala boog li jaar ci ndox mi wala ci ci fu mu mënti jaar rek fépp fu nga xamante ni ne doomu aadama day jóge day jël day jóge si dëkk bële dugg ci suñu dëkk nañ ko tëj avertiroon naa leen ci vidéo bële passé fekk dara ñëwagul am na ñu gëm am na ñu gëmul fekk dama jotoon benn information mais bii information bu bees tàq la boo leen gisee nu ma soloon nii sax ngeen xam ne maanaam dama tëddoon ci sama lal di seetaan sama télé dama dugg si benn sama benn groupe. ñu yónnee fa benn voc ñaari vocal ñaari vocal yooyu ay ñag lañu ay ivoirien lañu doon wax naan di avertir seen waa seen waa réew di leen wax ne leen maanaam euh, Covid 19 bi te muy feebar bii nii nga xamante ni ne ci la ñu nekk euh, maanaam tubaab yi fu mu nekk nii ñu ngi préparer benn vaccin vaccin bu nga xamante ni ne euh, maanaam dañ koy dañ vaccin boobu ñu ngi koy. ñu maanaam ñu ngi koy utiliser ci yaramu nit bu ñuul ñu koy utiliser ci yaramu nit bu ñuul soo leen fàttalikoo ci vidéo ci vidéo bi ma defoon doon avertir suñu nguur gi soo leen dégloo bu baax ci sama biir wax soo leen dégloo bu baax sama xol bi moo jeex ba mënuma sax euh, kii kii lu may wax boo leen dégloo bu baax ci sama vidéo man dama ni euh, maanaam euh, tubaab yi li ñuy wax xeetu tubaab loolu ñépp a ko xam jarul werante maanaam bu ñuy essayé bu tubaab defaree garab ba pare bu koy essayé euh, mi ngi koy essayé ci yaramu nit bu ñuul loolu jarul sax nekk di ci werante léegi nag man may avertir sénégalais yi vocal bi bi ma ko jotee yónnee naa ko sama ay waa kër te su ma paree ci yéen nii jéem naa leen woo mais jotuma leen pour avertir leen képp ko jot sama vidéo bi nang ko jël nga partagé ko si bu la neexee parce que Sénégal nag du sama réew rek seen réew la yéen sénégalais sénégalais yéen ñëpp. yaakaar naa ne bu nit amee xel bu rafet wala xalaat bu rafet war na gaaw mu avertir avertir askanam euh, covid 24 euh, euh, covid covid 19 bi nga xamante ni ne mooy feebaru feebar bi ñu nekk ci ci ci jamono bi te tubaab yi xam nañ ne feebar bi egsiwul Afrique egsiwul Afrique léegi fu mu nekk nii ñoom xam nañ ne feebar bi ñoom la gën a sonal parce que ñoom ñoo ko créé xat dafi waxoon na ko ñoom ñoo créé seen feebar ñoom te mi ngi leen di ëpp doole. léegi nag comme ñoom dañu yaakaar ne ñun suñu yaram du yaramu du yaramu nit xëy na yaramu mala la lépp lu ñuy lu tubaab créé ci garab ba pare mi ngi dem ci biir Afrique essayé ko ci yaramu africain yi. léegi man ma leen di avertir encore ngir yàlla fi sabilillah mbokk yi. Euh, santé euh, euh, kër docteur yooyu nekk foofu ci Sénégal maanaam fi ñuy nit ñi di fajoo. fan yii nii ba mu prochain ba ba ba mois prochain képp kun ci woo wala ñuy déclarer si rajo vision yi wala télévision yi kenn ñëw leen indi leen seen doom yi wala yéen ci seen bopp ngeen ñëw ngeen pikiiru bañ def ay vaccin bañ leen bañ leen parce que tubaab yi si boppam ñoom ñoo préparé loolu ma waxaat li ma waxoon sunu njiit yi baaxuñu ñun amuñu njiit ñun ay ay ay ay maanaam ay ay band ñoo ñu jiite ay band si boppam ñoom ñoo ñu jiite ay nit ñi nga xamante ni ne bëgguñu seen askan ñoom ñoo ñuy jiite ba pare may waxaale foofu ne euh, may waxaale foofu ne euh, boo leen bu leen remercier Macky Sall maanaam ngeen di wax ne ñu ngi remercier Macky Sall ñu ngi remercier gouvernement bi non bu leen ko remercier xam ngeen li tax doole waroo leen remercier Macky Sall li tax waroo leen remercier Macky Sall moom mooy ne euh, décision boobu nga xamante ni ne moom la Macky Sall jël mu ne. maanaam tëj nañu aéroport bi tëj nañu tëj nañu fépp fu nga xamante nii ne maanaam nit mun na fa jóge ci beneen réew dugg ci suñu réew li tax mu tëj ko moom mooy euh, organi organisation mondiale de la santé feebar yu mel nii bu amee maanaam état bu nekk dëkk bu nekk da koy bind te daf lay obligé mu forcé la maanaam nga tëj nga tëj fépp fu nga xamante nii ne mooy mooy nekk mooy nekk jaarukaay daal ay aéroport wala ay port comprendre loolu dañ ko imposer suñu su suñu nguur il faut loolu ngeen xam ko organisa organisation mondiale de la santé loolu xam leen ko ñoom ñoo état bu nekk maanaam dëkk bu nekk organisation mondial boobu day bind lettre président bi exiger ko forcer ko pour mu tëj pour mu tëj euh, frontière yi maanaam fépp fu nit nar a jaar voilà kon mi ngi noonu euh, parce que Macky Sall su fekkoon ne moom par exemple daf ñu naroon a aar bi Covid euh, Covid 19 bi. Euh, maanaam bu mu génnee feebar bi bu mu génnee rek ci la waroon a bloqué yépp mais boobu léegi tubaab yi ñu ngi ñu ñu ngi dugg yéen ko gën a xam tubaab yi ñu ngi dugg ñu dugg ci ñu ngi dugg ci Sénégal gis ngeen ko amoon na ay euh, ampaga yu tubaab yu dugg jël ko ñu jël leen yóbbu leen Casamance ñoom ñoo fa indi feebar bi nes ce pas kon nag bu fekkoon ne organisation mondiale de la santé moom joxewul woon Euh, maanaam joxewul woon ndogal bi na leen leer ne kon suñun suñu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy jiite dañuy bàyyi continuer bàyyi tubaab yi ak chinois yi ñuy dugg ci biir Afrique parce que ñun africain euh, maanaam mi ngi noonu daal maanaam suñu bopp yi moom moo baaxul xaw ma lan moo nekk suñu bopp yi maa ngi doon waxtaan ak sama benn xarit sànq rek mooy wax loolu. léegi man maa ngi leen di prévenir encore képp ku ci jot sama vidéo bi bu la neexee mu nekk sa jàmm jël ko nga partagé ko te nga woo say famille bu fekkee yaa ngi Europe fii. wowal say famille wax leen ne leen fépp fu ñu woote ci ci ci xawma case de santé yi lañ koy wax foofu Sénégal wala ñuy publicité ci rajo yeeg télévision yi ne dem leen ngeen ñàkku ji bu leen dem bu kenn dem ñàkku ji waa bu kenn dem ñàkku ji parce que tubaab yi def nañu li ñuy def ba pare fu mu nekk nii bu ñu sañoon nit ñu ñuul ñu aussi maanaam kii bi ki feebar bi daf leen di rey du dëgg boobu ba léegi feebar bi ñëw na Afrique mais dugg fa dugg dugg bu métti noonu voilà léegi képp ku jot sama sama petite vidéo bi jël ko nga partagé ko woowal aussi sa famille affaire ñàkku buñ leen di dina woow pour ñàkk leen bañ leen bu leen dem bañ leen bu leen dem waa kay nit ki euh, maanaam soo nekkee da ngay da ngay da ngay xawmu nan nan lañ ko waxee damay wax si xol bu damay wax si xol bu jóg daal parce que dama xamul lan moo waral euh, maanaam tubaab yi ak naar yi amuñu benn respect suñu ba bu ñuy defar seen ay garab sax ci yaramu der bu ñuul la ñuy jël du ko fa essayer daal xaw ma lan la ba pare nag suñu dirigeants yi ànd ak ñoom ci loolu. suñu dirigeants yi ànd ak ñoom ci loolu lu ci mel ni comme comme Sénégal hôpital sax amu fa hôpital laa wax bu la sa di métti rek doo xam nooy def. soo yeggee hôpital da ngay dee parce que docteur bi du la laal daf la naan nga indi temps loolu pour lan la ci dëkk boo xam ne am na am na euh, xaw ma xaw euh, am na zircon am na pétrole dëkk boo xam ne am na lépp manqué wul dara maanaam dara ñun manqué wuñ ko yàlla dafa jël may ñu lépp mais mënuñu koo jariñoo loolu kon kon anamu bala may dee Sénégal ñu naan intellectuel intellectuel intellectuel mais intellectuel yi nga xamante ne ñoo mës a yor Sénégal mais yóbbuwuñu fenn yóbbuwuñu fenn lan mooy intellectuel yóbbuwuñu fenn hmm? fu mu nekk nii bu ñu fexee ba ba boo leen toog askan bi di nelaw fu mu nekk nii tubaab yi dinañ fexe ba buñ ñu koy jaaral jaarale ñu ngi koy jaarale ci su ci suñu ay dirigeant ñu ngi koy jaarale ci seen suñu ay dirigeant yóbbu ko ci télé yeeg rajo yi dem leen ngeen ñàqu ji nangam ak nangam ma lay fàtt ma leen di fàttale euh, am na benn film bu nga xamante ni ne américain yi wala tubaab yi joué nañ ko 2003 doon ci wax lii nii doon ci wax feebar bi bii cobin Covid Covid 19 euh, bi muy feebar bi nekk nii léegi waaw defoon nañ ci film comprendre nga doon ci wax fee doon ci wax exactement feebar bii nii jëloon naa vidéo bi keroog sama rakk bi moom ma ko yónnee ma jël ko ba partagé ko waaw may wax ne nag pour bañ a ba pare bi fin film bi dañu wax ne ci biir fin film bi ah, dañuy préparer benn benn vaccin maanaam ci finu film bi xam naa ku dugg ci YouTube bi rek di nga gis euh, kii bi ma partagé ko ci sama page bi ngeen dugg ci biir ngeen ngeen déglu ngeen déglu ko dama fàtte site bi nu mu tudd sinon ma wax leen ko mais man daal prévenir naa leen. képp ku nga xamante ne yaa ngi biir Sénégal yor nga sa yor am kii nga say mbokk bu bu case de xawma case de santé xawma hôpital yi waxee ne ñëw leen ñu vac ñu defal leen vaccin bañ leen tubaab yi ñoo ko préparé te suñu njiit yi ma waxaat ko encore amuñu fulla amuñu fayda ci seen bopp bëgguñu seen askan waa kay jërë ngeen jëf